di rafetlu seen ànd ak ñun Touba Argentine TV ñu ngi toog ak madame Sokhna bintu Bintou Coréen muy euh, ambassadrice bi représenté Sénégal fii ci Brésil ñu na ma seq ak waxtaan ak moom boo xam ni lii sabab bi gis ngeen ni directeur des Sénégalais sérieux Sori Kaba ñëw na fi démb ngir rencontré ak Sénégal yi fi nekk seq nañ nag jataay bu yaatu démb ak Sénégal yi nga xam ñoo nekk fii São Paulo lu bari nag tukkee na ci ndaje mi ci bëccëg bi seq nañu jataay ak kilifa yi nga xam ne ñooy yu réew bu Brésil li ci tukkee nag loolu la ñu fas yéene faram-fàccee rek madame ñu ngi lay euh, nuyu di la wax salaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu di leen fay yéen waa Touba Argentine TV di rafetlu seen participation ci euh, rencontre bi ñu amoon euh, démb ak sénégalais yi nekk fii ci São Paulo. muy rencontre bu ma accompagner le directeur général du Sénégal à muy euh, l'ambassadeur Sori Kaba rencontre bi nag lu ko waraloon rek mooy euh, toogaat ak yi seet euh, si lan la ñu nekk seet problème yi ñuy jànkonte nag lañ ci mun a euh, taxawee mu nekk rencontre boo xamante ne man sama bopp defoon naa ko bi may doog a ñëw euh, ndax léegi def naa fi atax genn wàll njëkkoon ñëw tasax sénégalais yu São Paulo wax yeneen béréb fii si agent si Brésil xamanteex ñoom ak euh, seet lan mooy seen woon seen ay problème ci problème yi ñu posé woon nag booba mu doon benn di woon affaire passeport yi ñaar mu doon affaire sénégalais yi ñu bloqué woon euh, Sénégal yi demoon vacances ak seen protocole ñu tey leen fa Euh, ñett mu doon dañu bëggoon renouveler seen carte d'identité ak euh, bokk ci élection yi euh, beneen di financement seeni activité ñoom muy ñu góor ñi ak ñu mu jigéen ñi ax affaire logement tam naka lañ ci mën a taxawee donc ci diggante boobu ba ma leen gisanteex ñoom ma def li ma mën ba yàlla def effectivement passeport yi ñu mujjee ko régler année boobu ndax 2017 am na ñaari mission yu ñëw benn avril lim fi toog dafa gàtt ñaari semaine doyul ñu waxtaan ak wax ministère de l'intérieur ba ñu yónnee waat ma beneen mission bu ñëwaat pour toog trois semaines euh, loolu muy problème passeport yi ndax euh, mission passeport gujoon na fi bu Brésil yàgg na ñaareel bi di affaire euh, participer ci élection yi ma def plusieurs tournées immatriculer leen loolu mu daf may permettre ma xam ñaata Sénégal fi nekk si sur la base statistique yi nombre bi ma jokkoo samay kilifa yi nekk Sénégal wax leen nekk tant de Sénégalais ñu ngi fii Brésil ak tant de Sénégalais ñu ngi Argentine. ci euh, euh, ñi ma immatriculé mhm. mu yoon plus de 4000 sénégalais yu ñu immatriculé parce que du ñëpp du ñëppay ñëw ñu immatriculé yenn saa yi boo ñëw tourné tam du ñëpp ngay fekk sur place mais boobu moom immatriculé lu toll si 4000 sénégalais ma wax ko euh, autorités yi nekk Dakar ba mu euh, ñu accepté ren ji au mois de mars yónnee nañu benn mission waa ministère de l' intérieur ñu ñëw defar ni ci seen euh, carte d' ku bëgg a def carte d'identité nga amaale carte d'identité mën a euh, participer ci élection élection yu déwén incha allah beneen bi mu doon waa protocole yi ni ma ko waxee yi ñu bloqué woon euh, ma jëm ci def ay jéego ci lañ ma expliquer nag nag en réalité ku am protocole protocole mooy première étape benn document bu ñu jox sénégalais yi yi demandé statut réfugié donc ñu war a fàttaliku tam ne Sénégal amul dara lu fa xew lu mun a justifier nit yi di jógandoo màbbandoo di dem bitim réew di uti ci statut réfugié ñoom seen bopp autorité brésilienne loolu lañ ma wax yi ma ñëwee dem jàkkaarloo ñoom directeur général de l'immigration mu ne ma ñi lañ doon demander statut immigré euh, statut réfugié mais dem nañ étudier nañ cas bi xool na seen seen ambassadeur bi nekk Dakar mu confirmer leen nekk Sénégal amul benn situation bu nu expliquer loolu ma ne leen nag waaw c'est vrai que du ñu ay réfugiés dañu ñëw pour daan ci seen doole fan lañ leen mun a dugal ban statut lañ leen mën a defaral boo xamante ne du réfugié ñu ne ma nag fi mu nekk nii loolu amagul ci réflexion lañu ñu nekk euh, ma comprendre ne que tam ne suñu mbokk sénégalais yi yoon bu gën a gaaw pour am këyit commencé liggéey la ñu jël ñoom seen bopp xam nañ ne dara xew fa lu leen dañu liggéey si. ñu gis ne que lu gën a yomb fii Brésil mooy nga déclaré wu réfugié ñu jox la kayit. Ah, loolu sax dinaa ci dellu bu si kanam parce que si réunion bi ñu amoon tey si ngoon ak défensoria publique de de la União. Euh, discuté waat nañ ci. beneen point bi muy affaire financement bi. bu ñuy gisante première fois bi def naa rapport rendre compte suñu autorités yi nekk euh, Sénégal. pour que ñu bàyyilee leen xel ñu nekk Brésil mais fàttali naa leen tamit ne ñoom ku ci nekk danga war a monter dossier monter benn projet jaarale ko ambassade bi ambassade bi yónnee ko dakaar pour ñu étudier ko loolu amagul nag am na ñu déposé mais beneen yoon la ñu la ñu utiliser ba euh, déposé muy tamit euh, wàllu logement sociaux yi donc euh, directeur général dellusiwaat na ci wax yan possibilité ñoo am euh, naka la leen euh, ministère mu ne aider ay promoteur pour que ku ci nekk si diwaan bi nga bëgg euh, am logement ñu seet naka lañ koy defee mais def leen encourager tam pour ñu organiser wu en coopérative parce que loolu moo koy gën a ah, loolu nag mu nekk premier point discussion yi parce que il fallait que ñu def li may oowee état des lieux suñu discussion bu mujjee yan problème lañu tëraloon ax tey fan lañ ci toll lan la ñu réglé ak lan moo des mu nekk loolu euh, beneen point bi ñu tër li ñu laajte woon euh, boobu si premier fois bi tamit te waxuma ko sànq muy affaire assistance bu amee ku fi wàññeeku waaw nee nañu parce que euh, saa yu kenn wàññeekoo fii ci communauté bi ñoom ñooy dajaloo seen xaalis yónnee corps bi boobu bi ñu ma ko waxee ma ne leen li ma yore nag mëtul ñoom li ngeen mën a dajale yéen entre entre sénégalais en deux jours moo moo weesu fuuf man li ma li may yore par semestre par six mois ne li ma mun rek mooy saa yu amee ko wàññeeku ma yónnee contribution wu ambassade waaye du nekk lu mët boob ba léegi nag loolu laay def ku fi wàññeeku bi ma fi nekkee ba léegi damay jël enveloppe yónnee communauté ñëpp dinañ ko yëg président association bi jël ko ñu aidé corps mu dem bu dee wàllu ñi am euh, décès accidentel violente de mort mort violente sax laay wax par assassinat meurtre yooyu loolu ministère bi ci boppam mooy euh, jël les moyens pour transférer corps bi loolu ambassade amu ko muy man ambassade bu nekk fii wala sama yeneen moroom ambassadeurs yi amuñu budget bi sur place donc euh, yi mujjee ñu sollicité ñu mhm. waaw parce que balaa muy ñëw sax waxtaan nañ ci nee naa ko li ma yore woon ci premier semestre jeex na fin juin te demande yi li ci des des nañu 6 mois il faut ñu yokk pour parce que fi mu nekk nii ku ma defal demande du ma mun def dara parce que dara amatu ci donc ma wax ko DG te lu baax la sax ñu ñu ñu discuter ci parce que gis na volume bi demande bi nu mu toll donc comprendre ne que il faut ñu yokk budget bi edd bi ñuy yónnee li ñu oowee aide et secours li ñuy yox euh, ambassade Sénégal pour ko ñu mën a continuer assister sénégalais yi donc euh, euh, xaalis boobu aide de secours jàppale nañ ci pour dépouille ñi ñu gaañ wala ku feebar nekk hôpital jox nañ la ci mooy pour sénégalais en détresse ñi amatul ñu néew doole te mënatuñu toog fii bëgg ñibbi jëndal nañ leen billet ñu ñibbi euh, benn cas rek lañ ci am kenn ku waroon ñibbi daal di changer d'avis ne du dem parce que dañ koy maltraité mënuñu ko forcer brésiliens yi nañu amuñu droit forcé ko mu dell Sénégal ñu bàyyi ko mais liñ ñu sollicité boobu léegi def nañ lépp ba li ñu yore woon ci xaalis juin comme ni ma ko waxee jeex na ñu ngi bind naa ministère affaires étrangères di xaar sama ministre dolli ñu tuuti doole pour que deuxième semestre bi ñu mën a continuer di di aider leneen di feeñ ci ci waxtaan bi tamit euh, mooy euh, li ñu ñoom ñu koy woowee assistance waaye du assistance parce li may def nii li may wax li xaas bi dem loolu mooy assistance la ñoom wala wala voilà présence ma ne leen li ngeen di wax du assistance présence la. mooy bu kenn wàññi ko li may ootee wala yónnee message jaale ji nañu kenn ñëw waa ambassade ma ne leen loolu moom mënuñoo boole mu nekk benn condition bu ma ñëwee loxoy neen fekk yoruma dara doo leen wër si internet bi daal ne ñëw nañu waaye indiwuñu defar waaw parce que tamit xam nañ sénégalais boo ñëwee indi enveloppe duñu wax dara waaye day may indi enveloppe dafay fekk enveloppe ba nekk fa ma ne leen nag mun naa ñëw fekk dara nekk nekk ni fu fi dara xewoon bu may doon jóg du ma yóbbu dara loxo yi nan lay demee euh, mais à condition ko ñoom tam ñu accepter situation bi ne yenn saay situation bi noo xamante ne ambassade bi mënagul assister instant bi fi mu nekk ne ñu ngi xaar de la part de l'État du ministère des affaires étrangères rapatriement wu kooru Fallou Ndak bi mujjee gaañu bu dëkk Toledo euh, Toledo def nañu le point jox nañ leen factures yi ñu ngi xaar parce que yu cas yu mel noonu état bi moo ko war a def waaye donc euh, donc voilà ñu la mu mel ni it euh, am na loo xam ne it lu intéressé la fu leen mu jóge muy Argentine mhm. yaakaar naa sax gis nga ci ay vidéo yoo xam ne def nañ ko ngir di fa sàkk it lu mel ni représentant comme ambassade wala it lu demee ni consul loolu ndax it bokk na ci seen programme waaw loolu bokk suñu programme la euh, bi ma fi ñëwee bien que kenn accrédité wu ma euh, Argentine dem naa fa toog ak communauté sénégalaise bi nekk foofu échanger ñoom seet lan mooy seeni problème ax nak la ñu mën a continuer di leen aider parce que dama fi ñëw fekk benn système bu fi nekkoon bu ñu amee ay problème ay këyit dañ koy président association bi dajale yëpp envoyé ñu ko fële ci ambassade bi à Brasilia ñu defal yëpp muy authentification muy légalisation muy attestado lépp façon këyit bu ñuy demandé déclaration de naissance lépp ñu def leen ko delloowaat leen ko boobu léegi loolu mooy marché euh, di depuis mois de février nag autorité Brésil euh, Argentine dañu changé daan ne Sénégal ñoom ñu ngi dépendre ci seen ambassade bi nekk Abuja fële ci Nigéria. no non non léegi nag dañ ne ñoom euh, comme amuñu euh, seen ambassade bi couvrir Sénégal ma nga Argentine ku amati këyit. Sénégal yi bu amul këyit na nga ko yónnee ci seen ambassade bi nekk Abuja. pour ñu légaliser ko wala lu mu mun ti doon demee loo xamante ne ñoom dañ ko war a def authentification yëpp. Euh, mu nekk lu xaw a diis parce que euh, xam ngeen bu baax ne diggante bi euh, Amérique latin ak Afrique de l'Ouest pour affaire courrier dem dellu si dafay metti ñu am si sax benn cas ku génnoon àdduna mois de mars mais fa lañ toog di discuter discuter daf ñu jël weer pour ñu mun a ñu mun a accepter defaral ñu ko te il a ko ma dem ba foofu profité si benn réunion dem gisante ne expliqué leen ne leen. parents yi ñu ngi oote fu nekk di laaj lu tax mënuñu jot ci seen néew seen doom pour ñu jenc ko bi ma leen sensibiliser si la ñu defar après autorisation pour accepter signature ñu def ko loolu euh, beneen bi muy affaire visa yi tamit dem Argentine yombatul nu mu demee nu mu ne woon nga dem consulat bi nekk San Paulo wala nga dem. jóg na ay vidéo jóg na ci jëm ci. waaw yow di wax ni loolu dafa jafe léegi. Ah. loolu it bëgg nañ nga gën ci loolu tam mu nekk malheureusement Sénégal léegi dañu dañu yombal bu ñu amee lu ñu kaas rek ñu def ci vidéo rek yónnee xamuñu sax lan moo waral parce que foog nañ ne affaire visa ambassade bee ko war a régler mais comme ni ma ko waxee démb dëkk bu nekk dafa am politique am pour ay entrée am ak ay sortie ci territoire am ni muy joxee visa moom moo ko moo ko moom. ñeneen da ngay demander ñaan njekk la du par force te du ambassadeur mooy force pour affaire visa mais yaakaar naa ne dem bi ma expliqué ñëpp nee nañ ma après nañ comprendre nañu nee naa leen euh, argentin yi ñoo décidé sénégalais buy dugg ci seen territoire na deme demander visa fa ko war a demande même passeport porte de passeport diplomatique lu tax parce que accord bi am entre ñun ak Sénégal ak Brésil wala ak Sénégal ak France wala Sénégal ak yeneen dëkk yoo xamante ne mun nga jóg ak sa passeport diplomatique dugg sans visa amul diggante Argentine ak ak Brésil te loolu euh, Argentine ak Sénégal te loolu ñaari ministère affaires étrangères yi ñoo ko war a négocier bu ut ci pexe euh, signé accord bi bu boobaa mu sotti fi mu nekk ni kuy ñëw kuy dem da ngay demander visa muy man. muy ambassadeur Sori Kaba mi dañ ko lijjantil amagul sax mais jox nañu euh, euh, euh, feu vert bi muy sama ministre affaires étrangères ku ci nekk da ngay demander visa ñu wax la fan nga koy demande nga xaar mais léegi def naa ne dem bi ñu échanger ñoom nee nañ ma léegi comprendre nañu parce que dañu foogoon na que ne que blocage bi si ñun. ñu bari ñu ngi faatu ci doomu sénégalais ne la dégg nañu démb ci ay journal yu génnee. Mhm. lim bu takk boo xam ne bu ñu ci déggee mën nañu jàpp ci kon réew mi moo demee noonu moo doon réew boo xam ne réewu violence la loolu it mën nga ci gën a leeral Sénégalais yi. waaw euh, mënuñu wax ne dëgg la ne fi mu nekk nii ñuy faatu euh, euh, Amérique latine dafa bëri. mais mun nañu wax même chose tam ñuy faatu Europe war a Italie wax yooyu def naa ne yéen a ngi suivre presse bi tam bëri na à waaw du nekk lu pour man du lu bees. li bees mooy moyen de communication yi moo gaaw ba. lu xew teel a jàll mais duñ ne mi ngi doog a am immigré yàgg na am Italie wala France wala euh, Amérique latine immigré yàgg na décédé France wala itali wala Amérique latine wala États-Unis mais niñ koy jotee moo gaaw moo tax ñu foog a nekk phénomène bu lu bees la yàlla moom bakkenu ñëpp li ñu mun a déplorer rek mooy meurtre yi loolu ñuy nangu seen bakken par arme loolu daal mun nañ koo déplorer waaye ku génn àdduna moom euh, fépp la ak fa munti nekk mun na la fekk dee mun na la fa fekk réew mi moo demee noonu tamit mais fii tamit euh, li ñu doon wax démb statistiques yu génn statistiques yoo na ne Brésil la du Sénégal la génne du ambassade bi la génne statistique moo génn euh, ñuy wax ne que 2017 lu mat 62000 nit faat nañ leen fi kenn mu ngi noonu mille nit faatu na fi policier rey na lu ëpp 5000 nit juróomi junni nit rey nañu lu lu ëpp quarante 345 policiers te ñu ne si meurtre yooyu yëpp si 100 euh, euh, meurtre boo gis 100 assassinat boo gis huit cas rek moo lañ ci réglé léegi bi ñu demee ñu ngi ci doon discuter ak euh, défensoria publique bi avocat bi fa nekk ñu poser problème mu ne malheureusement c'est une faiblesse du système euh, policier ici euh, au Brésil ñoom seen bopp dañu am seen problème mu ñu ñuy assassiné ñu ñuy rey te ba léegi amul suite enquête yi sorewul jàpp ñu ñu ko def euh, euh, quelques moi ci ginnaaw am na benn euh, adjoint au maire benn dame bu nekkoon euh, euh, Rio bu ñu faat moom dañ ko assassiné si circulation bi lañ ko fekk ba sànq ba fi may wax a yow nii kenn xamagul meurtre bi jàppuñu kenn donc mu nekk loo xamante ni lu lu bees xëj na sénégalais yi tomb nañ ci fan yi mais du lu bees li ma leen mën a recommander rek mooy il faut ñu bàyyi xel ne que immigration fii pour ut liggéey bokku la immigration Europe Europe liggéey bi sénégalais di def yi immigré yi rek ñoo koy def yi fii liggéey bi ñu fi def si dañuy fekk doom brésilien di ko def parce que tam fii bi euh, mu jógee tiers monde yàggul raxas oto nettoyé pare-brise oto si circulation bi jaay ci mbedd bi euh, baara njënd si euh, nu ci marché yi jaay ay fruits lépp lu Sénégalais di def fii comme jaay si mbedd bi lépp lu Sénégal yi def comme euh, activité informelle doomu brésilien daf koy def donc facilement mun nañ leen xool concurrence bi te dañ leen di suivre bu ñuy dem si foire yeex marché yi parce que la plupart du temps yi am dernier décès yëpp loolu la xuloo ci biir xaalis si biir marché wala foire euh, jeex ñu topp ñi euh, sénégalais yi ñibbi pour laaj leen seen xaalis ba ki décédé bu bu yàggul bàyyi c'était la même situation donc ñu xam ne que ñu war a jàpp bàyyi seen xel ne que dañ leen di ciblé te ñooñu nekk ci mbedd bi dañuy tàmm armée bu ñu yorul paaka ñu ngi yore pistolet waaw a bàyyi xel la. lu jëm ci consul honoraire yi ak yi nga xam ni jot nañu nekk sax ci ay gox. Mhm. ñu bari jàpp nañu tekkuñu fa dara dañu waroon tànn ci doomu yi nga xam ni am nañu niveau bi. Mhm. foofu it yaakaar naa ne léegi euh, du loo xamante ne ñun. dañ leen di ciblé du Sénégal mooy jóg ne kii la bëgg considéré euh, kii la bëgg considéré ah ah ñoom ñooy jógal seen bopp gis ne que Sénégal war na soxla conseil honoraire gox bi ñu nekk ñu bind def demande dugal seen CV proposer seen bopp mais sénégalais bu def doon ñu def ko parce que fii fii ñu wax nii euh, am amoon na fi conseil honoraire Belo Horizonte pas San San Paulo Belo Horizonte ki fa nekkoon consul honoraire euh, c'est un bi ma ñëwee ma laajte ñu ne ma euh, dafa dem continuer ay études am Europe mais sénégalais la. yaa ngi doon sàkk ñuy organiser lu mel ni ay daayira année bi ñu def ko dëkk bee dëkk bi loolu it mel ni yaa ngi am xalaatu gën leen jege. en fait loolu c'est parce que euh, bi ma fi nekk léegi damay jot souvent ay invitation mu nekk loo xamante ne. yenn saa yi doo mën a di jóg tout le temps doo am personnel boo xamante wala moyen yoo xamante ne fu ñu lay invité nga léegi li ma leen eh, eh, ñaan mooy ñu choisir ay événement benn ci année bi parce que daayira yi dañ ci bëri bu daayira Mouride defee benn événement invité ambassade bi ñu seet bu ambassade bi mënee jóg dem dem bu mënul jóg dama représenté daayira Mouride ji tamit def même même chose c'est pour que ñun tamit ñu ñuy présent rek si si si si événement yi loolu dafay tamit facilité suñu communication. ngir ñu def benn forum fii boo xam ni mboolem organes yi nga xam ni dañuy yëngu. ci di jàppale immigré yi ñu teewee ko loolu it yaakaar naa ñàkkul ni waxtaan ngeen ci lu yaatu taxaw na wala. Euh, démb la ko doon doog a wax fii pour ñu def ko fii mais du lu nar a nekk lu bees ci moom parce que yàgg yaakaar naa ne def na ko ci yeneen euh, dëkk en Europe léegi muy forum boo xamante ne euh, dañuy rencontre sénégalais yi dañuy rencontre yenn corps de yi ñu soxla yenn fonctionnaire mën na nekk fonctionnaire wala privé wàllu habitat euh, wàllu affaire u banque parce que am na ñu fi doon wax waxu ibbi fii benn banque tam pour faciliter transfert d'argent bi sànq bi ñu waxantee xax avocat bi nekk défenseuriat public ñu ngi wax tamit ci forum yi boobu mën nañ ko invité pour mu ñëw expliquer yan moyen la ñu mën a def pour sénégalais yi régulariser seen situation parce que mi ngi expliquer ne affaire liste yi daan génn police fédérale fi nekk ni arrêté na ba prochaine fois ba après élection yi dañ ci war a toogaat xool léegi nag wax ñu yan cas la ñu mën a régulariser sénégalais yi ou expliquer ñu nekk que affaire protocole bi sénégalais yi dugg du loo xamante ne mun na jëm kër pour ñoom ñu ngi ak euh, euh, gouvernement bi ak euh, parlement bi di discuter yeneen projet yoo xamante ne mun nañ trouver benn moyen pour sénégalais yi fi nekk pour liggéey si moo leen indi ñu mun leen ci dugal donc forum yu mel noonu day nekk occasion boo xamante ne mën nañ discuter façon thème bu nekk muy économie muy politique muy euh, integration des des des des immigrés euh, mu nekk lu am importance incha allah. ok ngi doon wax ci wàllu facilité dem bi ak dikk bi fii bu ñu gisee ne Sénégal soriwu fi mais ñàkk wàllu direct tax na ba bu ñuy dem gis nga page ni muy demee ak it li fiy jógee Sénégal Argentine mhm. loolu it yaakaar naa ni waaw loolu tamit mu nekk lu am importance du yéen rek ko koy yéeg ñun bu ñu jóg dem Sénégal dafay metti si ñun parce que da ngay yéeg wàcc yéeg wàcc Euh, ma doon gis ne que tamit si press bi presse sénégalaise gis naa suñu autorité yi yore wàllu transport aérien ñu doon wax ne que 2019 bëgg nañ commencer liaison ak euh, le Brésil je crois que São Paulo la ñuy commencer mun na a nekk lu am importance parce que comme je l'ai dit am na benn accord transport aérien bu ñu signé ba pare diggante euh, Sénégal ak Brésil depuis 2007 ñun ñoo ko war a Sénégal moo ko war ratifier rek mais mu nekk loo xamante ne yoon boo xam ne war nañ ko mën a ibbi. accord bi nekk na fi waaye amul benn volu Brésil buy jógee buy dem Sénégal amul benn volu Sénégal buy ñëw donc euh, ñuy xaar ci Sénégal suñu suñu compagnie aérienne bu bees bi mu commencé incha allah euh, vol yi. léegi leneen li ma doon wax mooy euh, li li nekk seen souci mooy est-ce que am na suffisamment de clients passagers pour feesal vol yi. waa loolu tamit wóoruma parce que li ma gis mooy déplacement yi li ci bëri en tout cas de la part des sénégalais mooy veillu tabaski ax màggal Touba muy ñaari événement yooyu donc il faut ñu continuer def étude bi xool ndegam euh, li ñuy wax nag euh, yoon boobu rentable na ndax dina dina dina jëm kër waaw donc muy nekk étude boo xamante ne proposition boo xam ne dañu ko war a continuer suivre ak euh, autorités yi yore transport aérien Sénégal mbégte ci yow bu baax ci jàmm dal gi jataay bi ak kàddu yu leer yi ñu fi yëkkati bu fekkee am na loo xam ne rek yaa ngi ko bëggoon wax te laaj ñu la ko euh, je crois que jot nañ def euh, tuuru euh, problème yi ñuy jànkonteel yëpp mm-hmm. li may peut-être rek suggérer mooy mm-hmm. bu amatee problème mm-hmm. balaa ñuy décréter rek ne lii moo tax te fekk ñu xamuñu naka la. soo démb par exemple bi ñu expliqué affaire visa yi nu muy demee. lan mooy note verbale. ñëpp d' accord daan ñu ngi doog a comprendre ñëpp nag. ñu doon kaas sax di doon. wax nañu nag matuloon ko bi benn groupe communication ngir gën a jege léeg-léeg ngay def ay xam ne da ngeen di leeral. non tamit jaru ko xam naa ne vidéo yéen loo leen tàmm la nii. Mhm. <laughs> man tàmmuma vidéo mais. mais beneen forme boo xam ne ku ma ku ku bind ambassade bi. Mhm. xëy na mun nañ rek def effort pour suñu site internet site web site web bu ambassade bi. mais mu nekk peut-être communication orale. Mhm. de euh, audio yu ñu enregistré def ko suñu sit peut-être xëy na dina facilité mhm. mais Sénégal yi encore une fois ñu ngi ko bind ci seen ginnaaw passeport ku ci nekk mhm. boo demee bitim réew da nga fas yéene fa toog da nga war a dem rapproché wu sa ambassade wala sa consulat nga am carte consulaire ñu xam fan nga nekk ci mhm. lan nga nekk pour ñu mun la protéger wala assister mais réalité mooy sénégalais du dem ambassade tant que amul problème li ma jot gis ay demande carte consulaire c'est pas parce que dañoo jékki-jékki rek nekk ay citoyen de c'est parce que police fédérale moo leen di laaj ut leen benn document bu ambassade signé boo xamante ne seen turu papa seen turu yaay mi ngi fa ñu doog obligé alors que waruñu woon sax xaar police fédérale di leen ko laaj ñoo ko waroon def systématiquement parce que loolu mooy réglementation bind nañ ko ci ginnaaw passeport boo demee wenn dëkk da ngay na war a feeñu sa ambassade xaar am problème euh, leneen li mooy fàttali ne lii ambassade bi def sax doyu leen dinañ critiquer ba tey mais kenn si immigré yi mënuma wax ne mus na gis benn ambassade ci seen i morom yeneen dëkk Afrique def réunion ak seen ay naatango yow ma laaj la question boobu est-ce que mus nga gis ambassade bu beneen dëkk Afrique def réunion toog ak ay ay ay ay ressortissants di seet lan mooy problème ak seen amul donc loolu. docteur mi ngi tudd démb bokk nga ci ñi nga xam ni ñoom la ñu gën a. loolu man xamu ko woon sax maa yéen a ko déggandoo loolu mais mu nekk lu may rafetlu de toute façon parce que euh, sama liggéey rek laay def. dañ ma fi yónni wax ma li ma fi war a def ak euh, muy diggante Sénégal rataxal diggante Sénégal ak Brésil ak jàppale Sénégalais donc loolu lay def. jarul may xam nit yi kan la. démb am na ku ne ma ñëw gis na ma. a maanaam am na def nga lu bëri pour ñu génnee ma prison ma ne ko man mosuma ko gis xaw ma ko mais la le fait que ma dégg nekk am na benn sénégalais lu ma mën def dinaa ko def parce que sama liggéey la bokk donc euh, euh, communication bu amee problème amuñu lu ñu comprendre boo leen ootee ambassade bi dinañ leen expliquer kooku moom amul problème ku bind ma tontu la. ku bind ma tontu la boo amee problème de demande booy laaj leerul bu dee li nga wax leerul. ma waxaat sama agent yi contacte leen ko laaj leen ko li ma bëgg a wax lan la lan la donc euh, bu communication bi génn euh, continuer rek. Mhm. defe naa ne dina tax malentendu yu bëri doo am incha allah.